Abrazo, Fe. coup Malick Ndiaye à gauche moom mooy def comédie bu Siteu moo dóor noonu benn gauche daw na daw na jafandu jafandu jafandu dóor duma xeex xeex jàppante nañu léegi làmb ji léegi neex na de barki yàlla làmb ji neex na ay di kilo léegi dañuy bëri ma ngay dóor ma ngay dóor dana ko ray dana ko ray woy sama nday plaqué daanu na daanu na <laughs> woy sama nday bu Siteu eh, bal jàmbur nee na ko arbitre gis nga moo tegoon xaalisam ne bëggu ci dara bu Siteu ngoog bu Siteu ngoog waxoon naa la li mu gëm-gëm moral la amoon moo tax mu teg xaalis moral boobu moo ko bëreloo moo ko may fit mu am ndam waaw moral la rek daa gëm boppam jàpp ne mais nag Malick Ndiaye da doon comédie da doon foo da doon foo da doon foo dafa mel dañ ko fay xaalis pour mu foo mais kee dañ ko fay mu tegaat xaalis dañ ko fay mu tegaat xaalis ne day daan boo lekkee sama mu jarul ngay woote jarul ngay woote ndimbal jarul ngay woote ndimbal sama avance boo ko lekkee barke Serigne Touba Mbacke ba Touba la maa la ëpp palmarès ëpp la kot maa la ëpp ndam ëpp la victoire barke Seydina Mouhamed maa la man barke Rasulaay maa la man defoo ma deful sama avance boo ko ma lekk la maa la man man kala man maa la man man kala si instant la man yow boo ma dépassé ma Touba boo ma dépassé barke Sëñ Touba ma dépassé ma Touba boo ma dépassé ma lekk la maa la man sama avance boobu la ko laaj Hey, hey, hey, hey. dama lay lekk laa wax dama lay coob dama koy lekk lam kataro yab ma sabne lu jëm yab ma mënoo bàyyi tooñ lu ma mënoo bàyyi tooñ yow yow mënoo bàyyi tooñ laa amul tooñ ma koy dugg bàyyi tooñ non kaay bàyyi bu nekk nga xeex Adama Diouf mooy bëreeg wulli mooy bëreeg wulli mooy juum noonu mais neexul ba neexul Adama Diouf moo mën moo mën wulli corona dee na suul lañ ko. corona dee na. chaque jour ñu arrêté. xam naa c'est pas la première fois lan mooy sentiment bi si xale bi nga xam ne sentiment bi c'est un grand plaisir pour moi ndax loolu moo tax ma bàyyi lu traditionnel bi ma nekk fële di def foofu ay innovation bàyyi suma superviseur yi à Abidjan ñu continuer loolu. loolu dafa nekk ndam bu rëy ci man ndax su ma amee ay jarbaat ay xale ñu jógee France. mais dañu bëgg a investir jàppale jeunesse bi fi koy jàppale ci làmb te seen nijaay nekk champiyon ñu wax ne damay bëgg nga ñëw defal ñu fa teraanga fekke làmb ji ma jox la yoon bu ñu dem gis ngeen làmb ji nu mu feesee sant yàlla rek maa ngi leen di ñaanal yàlla lu ñu bëgg a ko xam yàlla defal leen ko ndax ñëpp suñu defoon nii Sénégal na développé bàyyi France ne damay ñëw investir fii ci jeunesse bi jàppale jeunesse bi jaa jaarale ko ci làmb kon nag ñooñu am nañu félicitation. mu mel ni sa jërbaat wax nga ko am na sa yeneen jërbaat yu fi nekk est ce que mën ne relève bi doon sax dafa doon ñu ko yor actuellement. non am na ko yor actuellement parce que ñooñu ça prouve que par exemple relève bi mu ngi ci seen loxo li ñu def tey rek wóore na ne mun nañ ko am nañu ci yéene am nañu xarañ bi waaw di remercier suma vice président boo xam ne premier vice président chargé de la lutte avec frappe. ndax moom moom bés bi su moomee bés bi ñu di ma cëral dama koy dóorawaat cër bi rek muy Mbaye Sall Mbaye Sall. merci président ah, président jërëjëf. benn mot bu gàtt rek ah. waaw loolu yëpp day wane ni le CNG du président Bira Sène c'est une équipe. et c'est une excellente équipe. ñoo bokk ndey baay. parce que bu ñu jëlee cër jox ko màng mu yor lutte sans frappe mu am journée bu exceptionnelle tey Iba Mar mu bàyyi fa malgré emploi temps daal ñëw pour honorer drapeau bi mu ñëw ba fii daal di jël drapeau bi jox ma ko jàppal ni se tout le CNG la ko jox jàppal ni c'est le président Pira Sène la ko jox nañ jàpp ni c'est askanu làmb lañ ko jox muy fierté bu rëy di ñaanal les promoteurs promoteurs du jour lii mu dugg tey yàlla yàlla may ko ay yeneen édition yeneen édition yàlla may ko si ay ndam mbégte bu rëy rawatina nag rawatina làmb fu mu tëgg rek mu dem foofu kon nag drapeau bi la. kontaan nañ bu baax ñu ngi jaajëfal président di wax ne kontaan nañ ci drapeau bi di naan yàlla ñu fekk ko ay at yu bëree bëri chaque année Alex di ko président président président di ko président incha ñu ngi jaajëfal ñëpp incha allah kontaan naa maa ngi ak Kalmu Ndour ñoo bokk seen Pikine ñoo bokk seen Pikine Eumeu Sène ñëw di soutenir ñaari doomu Pikine Kalmu Ndour ak Eumeu Sène Junior arbitre sifflé na Pape Yekini ak Obali ko Maysa Ndiaye vice président Manga 2 delloo ko waat ay nitam waa CNG le président Bira Sène ak caméramanu CNG ñaa <laughs> ko Ibrahima xawma Ablaye maa 2 delloo ko waat ko Mbayang Mbayang bu Yekini Obeuly moo ñu wan kanam ñoom ñaar ñëpp dañ leen xamee ci lutte simple si mbapat yi lañ leen xamee deux ans la reportage deux ans la <laughs> Pape Yékini ak Obeuly Obeuly moo ñu wan kanam boo fi ñu daan la boo fi mooy da ngaa gëmmentu Mor Yékini moo ñu wan ginnaaw hey le grand champion Yékini Yékini Yaxya Baasul Yékini Korsiga waaw ki tëgg lii nag warul bàyyi lii parce que ki tëgg lii faajut la fekk baax fi nga xam ni fa màng Manga 2 sookee koo fa la Yékini sookee koo di Joal Joal faajut ak Île du Saloum yëpp mboolem tundu séeréer bi yëpp ñu ngi leen di nuyu sama goro yu baax yooyu ak ñoo baax allez merci beaucoup bi nga bi nga xalaatee ñaar ñii ñuy bëre mbapat nga dugal leen ci lutte avec frappe ëbbali moo ñu wan kanam waaye day ñoom dóoraguñu ba tey dañoo defe ne jullit simple lañ nekk fii dóorante la de voilà Pape Yekini merci Pape Yekini moo ñu wan ginnaaw pied gauche ëbbali tànk nday joor day mbapat jàpp na ëbbali mbapat la xam ñoom ñaar ñëpp mbapat lañ xam mais ëbbali dafa mel dafa mise ci jàppante bi bëgg na ouverture tànk day joor fausse garde mais ëbbali ñuul de la ilaha illallah lamp yi dafa tàkk ci kaw muy briller instant yi day tàkk fa tabaarakallaahu macha allah. bi si la nawaat ñaari poids lourd la ñu waruñu làng ci biir géew bi lañ war a bëre lang mooy ci saaku yi ñu def bëre lang ci digg bi ndax mu leer parce que bu ñu daanantee ñoom ñaar mën na am jaxasoo moo tax arbitre day bëgg ci digg bi lamp yi leer nañ Obali na benn ndeyjoor mais dalul Pape Yékini ngem bu weex moo ñu wan ginnaaw Pape Yékini ak Obali Pape Yékini moo gën a xees Obali moom dafa ñuus ñuul kurung kurung comme courant bu coupé <laughs> ñuul comme man mais maa gën a leer moom Pape ni lamp yi dafa tàkk mu gën a leer day briller comme goudron eh Pape Yékini laay laqay la laa dóor na mu dal ci bopp bi réll réll kañ la def nga gis saafara yi commencé tas téere yi attention Pape Yékini mi ngi dox ci kawam moytul ma ëbbali bu leen nii làmb ci jeex ay ndaanaanu mbapat lañu bienvenue ci arène nationale ci lutte avec dóor bi maanaam bëre dóor day saf sàpp neex Pape de ñam na ko léegi ci bopp xam naa boobu baa ngi yëngu ponkal rek nga dóor ko ci bopp comme genre Seydina yi dañuy miir rek fuñ toll dañuy miir. Pape ni Obali Obali sànni na benn droite Pape Pape laaw na droite Dóor fayu pied gauche pied droite garde normal fausse garde Obali moo def fausse garde mooy tànk ndeyjoor bi moom la jiital ñi ngi leewtoo ñoom ñaar nee nañu tekk gaaw leen gaaw leen gaaw leen guddi na mais gars yi namoon ngeen làmb de. fa tabaarakallaa allah man loolu damaa neex lool fa tabaarakallaa ngi leew toowaat ñoom ñaar Pape dafa am koo xam dafa war a dem tëddi léegi 9 lay tëdd léegi 9 lay tëdd fay téléphone fay connexion doo ko woo ba jot ko démb samedi 9h laa koy woo jotuma ko pour wax ko làmb ji léegi day teel a fatu Ablaye day teel a fatu. Ablaye seexal nañ ko pour Obali avertissement pour Pape Yekini arbitre sifflé na waat léegi sëñ bi sekk maanaam sëñ bi sekk di Ablaye dañ ko seexal maanaam léegi muse la léegi jabar ji seexal na ko ku ko bëgg a jot ba huit heures day fay téléphone am attention ñi ngi xeex maa ngi wax rek ndeysaan nit day changé mosuma xam ne Ablaye léegi 9h lay tëdd oh Seydina rek moo fi nekk taxawaalu léegi Seydina rek mooy taxawaalu attention Pape Yékini ngi dóor jàpp na la jeex na jeex na jeex na waxoon naa la bu la jàppee làmb ji jeex Obali daan na Pape Yékini waxoon naa la bu la jàppee làmb ji jeex mbapatkat la waaw bopp bi la doon bëree mbapatkat la nee na kii dara nga lan nga lan. du dara ndeysaan ma ngay njuk ma ngay njuk ma ngay njuk ma ngay njuk arbitre sifflé na 19 heures 17 minutes attention wuli Adama Diouf wuli door na ko Adama Diouf rëpp na wuli Adama Diouf wuli Adama dootoo ko wuli dootoo ko amati wuli Adama Diouf jàppante nañu attention Adama Diouf jóg na Siteu Adama Diouf rëppati na moo moo moo wuli daanu na wuli daanu na Adama Diouf daan na wuli wu yaay wuli ma naan Siteu rek Adama Diouf ba fecc woo pëp nax na ko ba daan ko rër rër rër bëre bu hee tey wuli dootoo wax ay waay wuli dootoo wax man de juum naa ba naan Siteu parce que damaa jaxasoo xamatuma woon lu may wax non tey wulli daanu na wulli wulli nañu ko e Adama Diouf nee na jeexagul waaye eh, wullee ngay bëriwaat ma ngay dóor <laughs> non lii amul fenn arbitre sifflé jeex na mu ñëwaat naan ko dama lay daanaat wulli continué na da ngay wulli oh tey suñu mbër daanu na mbëru Sénégal daanu na mbëru àdduna daanu na mbëru diaspora bi daanu na ndeysaan ñoom ñaar def nañu fair play ay xarit lañu li yëpp pour neex. maa ngi sant yàlla yàlla suñu borom laay sant ñëw naa entraîné naa ñaan naa bëre naa yàlla may ko na ko am ko ji. mais benn instant amoon avantage ci combat bi noo def avantage boobu man tey sax damaa ñëwoon jël du son ak moom parce que ñëpp dañu waxoon ne moom dafa bëre uh-huh. moo tax bi ma songee. rek naa ma ma way merci beaucoup ma bëgg ñu contact ñu bëre mais nag. mais bi laa ma ci jeex la ma def nga dóoraat ko. na boobu boobu beneen fo rek. Ah, non mooy forme bi nga indi tey forme bi. entraîné rek. Uh-huh. mu mel ni combat bi dañoo yaakaaroon da ngay caaxaan mais da nga entraîné carrément. bu ma gis xam ne tey entraîné naa boo xoolee ni mu bay aaji mbay. da ko sori daan ko. soog na ma ñu yoon def naa daanu ma. mais sant yàlla. le combat spécial Kalmundour école de lutte Boy Niang Eumeu Sène junior écurie Mor Fadam Guédiawaye ak Pikine attention ñoom ñaar yëpp pied gauche garde normal combat buy amul round d'observation xeex mbaa rëpp du am mbaa réelu du am mais Kalmundour moytul ma Eumeu Sène junior Eumeu Sène junior moytul Kalmundour attention poids lourd ak ki nga xam la mais tamit poids lourd la Calme Ndour dañ ko xam ci mbapat lu simple lii arrangé na ko lii bëgg na ko mais ndaanaan ngay bëreel Eumeu Sène junior ndaanaan la combat bi bu ci kenn parier lu ne mën na jee xew attention Eumeu Sène junior joxe na wet est wet gi baax na Calme Ndour tegal na ko chaise daan na ko attention la ilaha illallah muhammadu rasulullah dafa defee ne woon action bi jeex na te jeexul Calme nax na la Eumeu Sène junior nax na la ndax dala xoolal coach bi xoolal coach bi laa ilaha illallah wee ba action bi jeexagul woon. newoon dafa am combat dafa defe ne woon combat bi jeex na. saa waay jéggi ko. Eumeu Sène dafa expérimenté. te am expérience la. non wax dëgg yàlla am na expérience. ndeysaan oh Calme jaaxle na mi nga ci coach Cheikh daa jaaxle danga nga defe ne woon action bi jeex na mais jeexul woon. dalaa jéggi tuur la oh bëre bëre feeñ na ndaanaan nga doon bëreel ndaanaan nga mais ndaanaan nga doon bëreel waaw lii mooy loi sport boo naagoo rek daagu. alors ak euh, promoteur bi tëgg tey journée bi Rent Arena euh, ñu ngi lay nuyu Alain DKR waaw maa ngi leen di fay waa Sénégal di leen remercier naka yitte bi li ma lay njëkk laaj journée bi déjà réussite bi bon kontaan nañu li lañ si bëggoon nit ñëpp kontaan parce que comme li may wax chaque jour affaire bi du xaalis rek boo jiitalee xaalis rek mooy loolu li important mooy ñi bëgg bëri c'est vrai que ñi seen mbër pet perte du ñu bëgg mais au xam nga participer nañu te loolu mooy li si gën a important ñiy perte comme li may wax rek yan saa yàlla xañ la benn affaire fekk mooy gën ci yow mooy loolu ñiy gagné nañu gën a góor góorgóorlu ñiy perte gënaat liggéey mu jeex tàkk. initiative nga nekk un jeune sànq Manga 2 wax na ko tey kontaan un jeune jóge Paris ñëw fii investi pour jàppale jenes bi lan moo la gën a motiver ci loolu. non maag la boo ko bëggee. obligé benn instant waxtaan moo ko andi ah mais c'est pas genre dañu programmé woon ñëw tëgg ay lamb des trucs comme ça non non ñëw am feeling wu def ko def ko après mooy loolu. mais feeling bi dafay continuer wala da ngeen res rester. bu ci xaje allez allez. munoo def déjà instant yi am na suñu ay combat yu des. faudra ñu tëgg leen après ñu toog xool boobu bu demee comme bii rek ñu tàllal. lan objectif bi amul. koy bëgg ñu koy def rek. jàppale jeunesse waaw c'est pas non amul objectif personnel mais su fekkee pour jàppale jeunesse bi ñu ci biir voilà parce que lamb bi gis nañ si affaire yoo xam ne ñun bu dee bëgguñu ko def. mooy li ñoo wax objectif pour jàppale la jeunesse. Ah. mais tey bu ñu gisee combat yi fi am yëpp. daanaka combat yëpp ay grand combat la ñu. loolu naka la ngeen ko nasee. naka lañ lay. naka ngeen ko programme dafa am ñu nekk ci ginnaaw ñu xam mbër yeeg loolu. ah ñun yàgg nañu suivre lamb nag bi ñu nekkee booy ba léegi ñu ngi seetaan lamb xam nañu mbëri xam nañu genre mbëri ñu bëggoon tëgg loolu rek la ñu def tëgg ay combat amateur ñu ñu gis tamit koo xamante ni am na lu mu def ci lamb ba tey mi ngi ci lamb le roi des arènes Manga 2 nga tuddee ko trophée pour lan loolu. sama nijaay la. waaw ah, sama jarbaat. jeex a bokk dëkk du question bokk dëkk boobu rek mën ngeen bokk dëkk bi te doo leen bokk. sama nijaay la su ñu di tëgg làmb moom moo tax ñun ñu bëgg làmb bu ñu tëggee làmb faw ñu boole ko ci. tey Alain lan lay conseiller la jeunesse en particulier quoi. liggéey rek àdduna à liggéey leneen lu ñu leen wax du dëgg kaay leneen lu ñu leen wax à liggéey du dëgg sa àdduna doo ko lijjanti da nga koy liggéey nañu gëm loolu rek liggéey. c'est valable pour booy mbëri bu ku si liggéey dina fayeku ku si nooyal du fayeku c'est tout. Jumbo Ngor. c'est ton ami. c'est mon amul xaj seen si biir. yaakaar naa tey ñun sant yàlla rek moo ñu war ndax suñu ngénte la ñu ngi soog a yàlla defal ñu lu kawe suñu njot waa làmb yëpp à l'unanimité ñu ngi sargal ñëpp di remercier ñëpp tëggkat woykat communicateur. amateur mbër manager waa CNG ñu ngi gërëm ñëpp bu ñu limee rek juum ndaxte ñëpp wuyus nañ ñu tey taaral ñu suñu bës bi ñu jagleel ministre Abdou Karim Fofana futur maire commune Fann Point Amitié kon ñun sant yàlla rek ñu defoon jógee. mais ngeen nekk Paris basé ci làmb ji lan moo lan moo indi foo dem feneen ci àdduna loo fa am amool dara looy am mu neex sa biir réew nga koy amee. ñun dañoo wuti woon rek amuñu sax waaye pexe moo sabab lii picc ngi naaw waaye xel baa nga ca suuf loolu rek moo ñu dal ay doomu Sénégal lañu deretu Sénégal la moo jël suñu yaram lii cosaan la lii dafa neex tey bu fi kenn nekkul woon ma dégg tëggkat bi ak woykat bi rek sama xol sedd na yàlla na ñëpp réussir ci àdduna yàlla na promoteur yëpp am lu dàq lii fuuf parce que sport day juboole lu baax la. ba léegi ay jeunes ngeen. nekk bitim réew liggéey ñëw investir si réew mi lan ngeen di conseiller la jeunesse sénégalaise. ñu nangoo liggéey bañ a xeeb bañ a découragé bañ jël gaal yi ndax tey di nga gis fii booy boo xam ne di ko fay benn jox benn liggéey mu xeeb ko te amaana bu tukkee liggéey boobu ci lay teddee bay teral ay waajuram kon na ne góor ne góorgóorlu bu waaxasul jeex bu yoon jeexul waaxasul di jeex man tàmbali naa foo xam ne dërëm laa fa doon am yóbbu na ma ci 200 francs kon loo gis parcours la ak destin nañu jub moytu tooñ teg ko ci yoon yéeneente jàmm yàlla ànd ñun incha allah jumbo sant nokos sant nokos ñooñooy ay supporteru Marley bàyyi ko géejawaay tali bu bees waa géejawaay yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey Marley nag dafa mobiliser ci le grand combat waa Rent ñu ngi leen di jaajëfal jaajëf Libaas ca France jaajëf Alain jaajëf Jimbo Nokos sama xel dem na ci sama xarit Jaguar maa ngi koy ñaanal jàmm fa mu nekk attention attention Paul laa ilaaha illallaah Marley jàpp na ko Marley jàpp na ne ko réel bu lan saa takk na ko wóo bëb bëb bëb bëb ah déedéet ne ko réeloo ngi dóor Marley taxabal bi dañ na. njool ak gàttaan ca xabal na ko eh kii njool la de marle marle rëpp jógaat nañu ñoom ñaar ña ngay mbapat marle na ko bëgg a taf tafee marle tuur na ko ne ko réel na galgalaat njool la njool la njool la wañ na ko marle takk na ko c'est son fort c'est son fort takk dóor jaxabal réussir ko mais marle dafa mobiliser marle ak ne ko réel nee nañu teg Lansar école de lutte Papa Kane moo nekk Papa Kane Négory la ah attention Marley Marley sa tànk da daan karaj marle marle Marley loolu baaxul dix fois réussir ko Négory la am na doole njool na Négory la mi ngi dóor waa ko la tamit du bëre reprendre ñu ñaar Marley téy na tànk bi way daan na ko attention pivoté na daan na ko. Marley daan na ne ko réel Marley bëree na daan na lu ma la waxoon Marley bëree na daan na Marley se relance Marley relance na sa carrière. les supporters de Marley waa Géeje waaye ngi nii waa Tali bees waa Marché Ndiarème waa Limaamu Laay waa Limamoulaye marché Njaareem tali bu bees marché bu bees koñu saa Kajoor waa koñu saa Kajoor a ngi noonu waa Géejawaay ngi noonu Géejawaay c'est Géejawaay c'est la jeunesse de Géejawaay ce sont les supporters de Marley Marley qui si na waat ci course bi daan na avec la manière maar lay dellu si newaat ci course bi xool li mu andi tey il n'avait pas droit à l'erreur ndeysaan ñi ñëpp ñoo ko topp waaye ñibbi leen nag eh, mawɗo jiinilam abiɗe rabbina sofe idu bin harite